donc ñoo ngi jeexal nii rek tuuti kii bi ñu doon def léegi tournée bi nga xam ne délégation boo xam ne monsieur le préfet moo ko dirigé woon ñu ànd ceeg euh, syndicat yi ànd ceeg ci partenaire yi comme COSYDEP ànd ceeg président parent d'élève ànd ceeg aussi ay membres IEF ñoo xam ne tamit ñoo ngi ci ay inspecteurs yu nekk ci IEF donc jot nañu def juróomi centre témoin mais ba ñu demee lu ñu ci gis dal na suñu xel parce que gis nañu wax dëgg yàlla disposition jël nañu. bu dee wàllu présence aussi ñëpp ñëw nañu muy président yi muy enseignants yi ñu convoqué woon donc ñëpp ñëw nañu lépp daal jaar na yoon xale yi kenn amu ci jafe-jafe pour mën a gis sa sa place ak foo war a toogee copie yi ñuy composé yëpp doy na pour dire que vraiment lu ñu gis ni dal na xel war na ni wax dëgg yàlla disposition yëpp démarré nañ fii am nañ ko ba nga xam ne démarrage bi baax na donc léegi lu ci des mooy ñu topp loolu ba li ci des yëpp mën a jaar noonu ba nga xam ni incha allah bu ñu jeexalee daañu ci département Mbacké def nañu examen te amul benn jafe-jafe voilà ci wàllu candidat yi euh, Mbacké am nañu juróom benn junni ak euh, juróom ak ñeenti téeméer ak juróom fukk juróomi candidat te booy xool ci candidat yooyu am na ñoo xam ne suñu leen xool jigéen ñi lim bi dana nekk euh, ñetti junni ak juróom-ñetti téeméer ak voilà ak ak ñeent say xool jigéen ñi donc Mbàkke aussi booy xool am na loo xam ne foog ñu ko ci fësal bu baax parce que Mbàkke dafa am particularité nekk dëkk boo xam ni école franco arabe dañu cee bare pour ko doo si candidat franco arabe yi nekk nañu lim bu xaw a takk nekk nañ ñoom junni ak juróom-benn téeméer ak benn ñoo xam ne franco arabe la ñuy def ci beneen wàll bi mooy Mbàkke tamit booy xool dafa nekk dëkk boo xam ni école privée dañu fi commencé am doole te loolu aussi lu ñuy rafetlu la. privé yi déjà présenté nañu ñoom junni ak juróom benn téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñetti candidat donc Mbacke booy xool donc carte d'identité su ma koy